avons émission bu présenter à la 2 TV présentée par ce fameux petit-fils de Ma Bëgg connu sur le nom de Tal Ngol Ngol invité le ministre Habib Sy muy waxtaan ci Jolof ministre bi wax ci il faut aimer l'histoire avec

am na benn photo bu mu taxaw yëkkati ay loxoom bërki démb yàggul te démb ko mag ci saal bi fii boo seetee ci gannaaw tabax ba am na benn aaya quraaniya buñ ca naqsh muy rabbana aatina fi dunya xasana wa fi laaxirati xasana aya boobu sëriñ bi bari na lu mu sukkandiku wax ni bien fii bien fële ci aya boobu la sukkandiku lu waral photo bi foofu foofu la daan toogal yàlla foofu la daan toogal rasulullahi foofu la daan toogal cheikhuna tijaani foofu la daan toogal maamam cheikh seydul xaaj malik foofu la daan toogal al aarifu billah maolaana cheikh seydi abou bakrin mi ko yàlla jox maa ngi dugg ci buildingu démb doog a dugg si ci kër gi bu masaan toog Baye Diop sikkim ci wetam góor gi Abdou Sarr ci wetam góor gi Mbaye Diop ci wetam nga dugg si ci kër gi dem ci tabaxu ban bi góor gi Malick Faye ci wetam góor gi Moodu Ka ci wetam góor gi Mbeng mi daan denc Faat Gasama ma yóbbaale ji Idi Jeng jarbaatam ci wetam nga walbatiku góor gi Asan Jóob bu yaa gay Jóob ci wetam mu yóbbaale Moustapha Sarr ci ruq ba Pap Fay kañ ma génn ci bâtiment boobu dugg ci ruq bi wëlbatiku góor gi Mbàkke Sarr ci moo meññ tey jëm yi ñii ma tudd kenn ku ci ne ñii ma tudd am nga ci koo génne alxaaji Omar Ngiraan oustaz Ngiraan ci wetam li tax ma def tour d'horizon boobu c'était pour saluer daairatul muntadibina li taalimu ulumi diin ci làmmiñu sëriñ Habib ibnu Cheikh Seydou Mouhamadul Mansour ak ay rakkam lan la sëriñ Mansour daan def tëral téere yi abdurahman al axdar yi ba ca lawal ak saani nekku ci topp ñiy jàng di jàng ñi jàngoon di déglu ñiy topp di toppaat bu paree teg ci luxa bu paree teg ci sarf bu tegee teg ci naxwu bu paree teg ci bayaan mantiq lu mu bu àggee nag ci ci bu àggee ci ci ibnu malik lu mu la wax ne la ixmiraar nee na sama baay nee na tool yi daara ji nit ñi njabootu Cheikh Seydul Hajji Malick bëgg ñépp ba ñépp faf ko sopp si Mansour bala ngay xam ni moo baax nga ñàkk koo jublu loxo ndeyjooram bi du la ko teggi ba ba nga koy sopp àggoon na ci sagam loo ko defal defal teraanga bés du ñàkk mukk mu dugg sa kër seet ndax li nga koy defal yow mi ngi ci sa biir kër dafa am lu yonent bi def sallallahu alayhi wa sallam dem démb ma yër ko ci lay daanee lay waxtaan bi jox sëriñ bi dafa am ku ñuy wax abu mahdura al mushrik sàmmkat la woon bilaal di nodd tisbaar ca madinatul munawara muy sàmm bilaal di nodd mu di ko sayute ci baat bu neex yonent bi dégg ko woo zubayr woo seydina aliyun karamallahu wajha nee neen borom baat bu neex boobu nekk ci biti tey tooñ bilaal di ko toppandoo seetal leen ma kan la ñu génn xool gis muy xale yuy sàmm ñun leen taxaw leen ñu taxaw mu leen kaay leen wuyu xale yi dugg si yonent bi ne leen yéen ñi yéen kan moo ci doon chayute bilaal bi muy noot ñu tiit taqalikook seen sago kenn nanguwu la wax mu leen dama bëgg kenn ku ci nekk ci yenn noddal ma bi ñu noddee baatu abu mahduura jib yonent bi ne ko yow la ndekete nii nga neexe baat waaye ku neex baat bu sàmm waay kaay ñaanal la yal na yàlla dundal la te barkeel la te sàmm baat bi xale bi génn sànni yat wi ñëw jox ko boppam ne ko maa ngi ñaan yàlla nga sàmm ma njabootu yàlla dafa am nuñ koy sàmme lu mel noonu sëriñ Mansour daf ko jëfandiku dafa ma woo fii maag moom ñu wéet une heure du matin ba cinq heures du matin loolu sëriñ Habib rek laa ci mos a waxal mag moom yàlla rekk mooy ki ñu wéttali ñu waxtaan waxtaan wu yàgg mu dénk ma dimbale ma defal ma wan ma orienté ma bi ñu koy def jouru samedi la boobu théâtre de verdure bi ña ngi fay tëgg musique musique bi di déranger sunu waxtaan té bobu mo yor baat bi mune ma dom yalla ñu yalla may ku fi ñew jëlé fi li mom sukkandiku wul ci sañ-sañam sukkandiku wul ci autorité mënon mënoon na woo commandant brigade bi wala mu wo commissaire police bi wala mu wo maire dëkk bi wala mu wo préfet dëkk bi mais defu dafa ma ni yàlla nañu yàlla may ku fi ñëw jële fi lii kontine waxtaanam ba ñu nodd mu ni ma ma yeewi la ma dem ba jëmmi jamono ma am benn këyit bu ma soxla ma dem ci mairie dëkk bi ñu ni ma mairie bi dafa lakk ku fi bëgg këyit dangay dem ci watu dispensaire bi fa hôtel ba nekkoon danañ la ko fa defaral ma ñëw ci lieu bi taseeg Sidi Lamine Ndoye ma waxtaan ak moom mu ne ma Habib fii dootul mairie bi mairie bi fooñi la ma ñëw fa musique ba daan jóge ma dugg teg sama tànk ne e fii mooy mairie bi ñun ma waaw ma ne man ndeke man utuma woon këyit junju sëriñ Mansour la ma yàlla doon wan tey mooy tey fi la yàlla dénk yow dem ba jóob wa wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu